aousubillah min alsheytaani irajim bismillahi irahmaani irahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayiduna wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbi sawi ridwaani wa tamkin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bin sante borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonenteem bu tedd bi sayiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi Seex Mamadu Muntaxa ñaanal ko sunu boroom yàggal ko fi lool te may ko wér di ñaanal Sëriñ Amdi Moustapha xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla yàggal ko fi lool te defal ko wér ak mboolem njabootu Seexul Xaddiim di ñaanal mboolem kilifay diine yi jiital ci sunu sëriñ sëriñ seexu naam sëriñ Abdoul mbàkke Mbacke ñu seex ñu ngi lay ñaanal yàlla yàggal la fi lool te defal la wér noonu lañ koy ñaanale sunu sëriñ sëriñ alaaji fàllu njaay ibnu sëriñ Mbacke njaay ngeeraan am na yàlla yàggal ko fi defal ko wér ak njaboot sëriñ Mbacke njaay ngeeraan yépp di ziare mboolem kilifa yi rawatina njabootu seexul xaddiim di leen ñaanal sunu boroom yàggal leen fi lool defal leen wér di ñaanal bu baax waa kër gi muy waa Baol Média FM di tàmbalee ci moo di Diop caat directeur de rajo Baol Média FM ñu ngi koy ziar bu baax di ko ñaanal yàlla wér ba fépp foo xam ne bëgg na kër gi àgg fa rek sunu boroom àgg àggal fa lu kawe njortam yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def di ñaanal bu baax soxna war xamuy sekkal te ak soxna soxna soxna yi nekk ci kër gi yépp buñ joxe nuyoo bi soxna war xa rek danañu ko mën a jottali soxna yi yépp di siyaare kilifa yi ci njiitu sëñ Moustapha Thiam moom it danañu mën a siyaare waa kër gi moom it tubaarkàlla ak magu kër gi nag ñu teg ko ci loxool Baye Cheikh Gaye Rijaal bëgg fàllu Baye Cheikh ñu ngi lay siyaare bu baax di la ñaanal yàlla na yàlla guddal saw fan te yàggal la fi lool te defal la wér yàgg sa njaboot macha allah liggéey bi rafet na ñu lay siyaare bu baax a baax a baax di sàkku ci yow ay ñaan nga siyaareel ñu rek waa rajo bi yëpp muy kilifay rajo bi yëpp tubaarkàlla xam naa ci kanam tuuti rek dana ñëw ci ay njariñ yu bari yu fasanti ko yoo xam ne kenn ko ci nekk danga ci mën a jëriñu bu baax jariñ ci sa njaboot danañ ci ñëw ci kanam dellusiwaat ci seen jataayu tànn sa njariñ muy am samdi ak dimanche auditeurs ak auditrices yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yéen itam sunu borom subhaanahu wa taala faj seeni ajo dafa leen jàmm dafa leen salaam nda jaboot jàmm rek mooy mbokkam ñu ngi leen koy ñaanal di ko sàkku ci yéen mboolem auditeur rajo Baol Média FM ak auditrices yi rawatina jataay bii di tànn sa njariñ ñu nga xam ne ñu ngi koy déglu te di ko bàyyi xel ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla dafa leen jàmm dafa leen sutura dafa leen teraanga dafa leen tawfiix ak saadatu daare ni saadatu daare ni mooy lépp yàlla na yàlla dafa leen ko mbokk yi ñu daal di ziare Serigne Fallou Fall moom it ak bépp journaliste bu nekk ci kër gi rek wala bépp technicien bu nekk ci kër gi jox nañ siyaare bi sëñ Fallou mu siyaareel ñu techniciens yi siyaareel ñu journalistes yi ne ci kër gi yépp tey nag danañu ñëw ci wàllu seetu tabia biddiw yéeg ak eh, tabiaat di ñeenti tabia yi suuf ngelaw sawara ndox kenn ku si nekk su wootee foofu la ñuy tënk ceet gi duñ ko génn benn yoon suuf sawara ndox ngelaw bu nekk itam am nga juróom-ñaari biddiw benn bu ci nekk biddiw yi am na yu baamtu ci biir ndax boo ci gis baamtu na lu mu tuttuti ñaari yoon wala mu baamtu ñetti yoon ci tabia bi waaye taxut mu bokk degere nag ndax xam nga ci chiffre ci la ñuy taqali ko moo tax boo delluwaatee ca naar yu da ngay fekk samsu day ñëw ñetti yoon nga xool gis fa mariix ñetti yoon waaye nga gis fa mustar mm, gis fa mariix ñaari yoon nga gis fa mustar moom it ñaari yoon waaye taxut ñu bokk degere nag ndax chiffre yi bu lay njëkk rek moo lay ëpp degere boo delluwaatee ca turaab yi loolu nga fay fekk yaakaar naa da ko fekk otaarit trois fois yi ci des ñëw deux fois nga ñëw ci xawaay yu moom it noonu nga ko fay fekke nga ñëw ci maa yu moom it noonu nga fay fekkee ñetti biddiw yi xamar dafay daal di ñëw waaye mustar itam dafay daal di ñëw baamtu moom itam ak marix kon da gis na mook ma moo ko naari yu ñoo bokk ay biddiw ba mu des ñaari biddiw yu nu wuute rek na ñoom ñoo ko jagoo naar yu ak maayu moo tax ñaare ci wàllu ci wàllu sëy du ñu déggoo li ci gën a bari léeg-léeg nga gis foo xam ne dañ fay ànd waaye su boobaa siifar mooy àndale sëy ba waaye dootu nekkati tabia yooyu rek ku ci bëgg am ak leeral boo wootee ci 88 628 19 05 danañu la ko leeral ci kaw wala ci suuf ñu fàttali leen na démb am na ñun fi jëloon seeni gént war leen ko firil tey nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xam ne jëloon nañ seeni gént démb danañ leen ko firil tey kon fu ñu mën a nekk rek nañ bàyyi xel bu baax a baax a baax ci kanam tuuti maa ngi ñëw ci gént yi firil leen ko yéen yi nga xam ne jëloon nañ seeni gént démb tey ji itam ku am gént rek mën nga daal di joxe ñu karmat ko incha ca numéro euh, fréquence su rajo bi mooy 88 point 5 kooku mooy fréquence bi foo mën a nekk boo ko jàppee muy Touba ak li ko wër danga koy daal di am 88 euh, point 5 88 point 5 88 saa boo duggee ci rajo yi rek boo tàppee 88 point 5 da ngay daal di déglu Baol Média FM mi ngi noonu yow mi ko am jot ko sa mbokk sa mbokk jot li ko mbokkam mu jot li ko mbokkam kenn ko si nekk rek. ndax rajo njariñ la rajo la boo xam ne yaatal na trop trop trop ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax mbokk yi su ko defee rek 88 euh, nga ñuy jotee 628 19 05 foofu jokkoowukaay la 88 628 19 05 wala nga def 88 628 81 08 su ko defee ci kanam tuuti dana ñëw ci wàllu firi gént su ko defee liñ ci liñ ci ci jotoon laaj lu mot ñeenti nit danañ leen firil seen gént incha allah tabaraka wa taala 88 628 19 05 88 628 81 08 foofu dañ lay jël ci kaw jël la ci suuf tubaarkàlla kon ñu daal di ñëw ci gént yi képp koo xam ne rek laajoon nga sa gént nga bàyyi ko xel bu baax dañ la koy firil leeral la ko ba mu leer nàññ képp ku ba képp ku laajoon sa gént rek nga bàyyi xel bu baax ne ñu ngi koy firi bàyyi leen xel loolu bu baax a baax yéen ñi laajoon seen gént tubaarkàlla kon ñu ngi koy firi léegi incha allah mën nga jaar ci 88 628 19 05 bu fekkee da ngay seetlu ñu seetal la sa tabia seetal la sa biddiw seetal sa bis seetal la say sarax seetal sa couleur daal di ñëw nag ci gént yi incha allah salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waa Diagne maa ngi ziar. ñu ngi ziar naka yi tey. waaw man la Mamadou Mamadou Der. Mamadou Der. waaw. ana waa kër gi. ñu ngi sant bu baax. jàmm rek kay. alhamdulilah. alhamdulilah tubaarkàlla. waaw. bisimilah. waa ma ne bisimilah da nga doon leerlu. waaw waaw. waaw kay Mamadou Der. waa sa adat bi mi ngi nekk quatre quatre sa lim bi. ah. sa adadu sa adadu ismu bi quatre-vingt-quatre Mamadou. waaw quatre quatre dafay baax lool waaw ci boo bu fekkonte ne mën nga ci def ay sikkar ay wirda. waaw. dana am solo rawatina bisu dimanche. waaw waaw. sa bis dimanche la diggante sept heures huit heures biddiw bi dana taxaw. waaw quatorze heures quinze mu taxawaat ci kaw asamaan waaw waaw tabi abi naari yu la safara naari yu bu mag la am nag ndax biddiwu samsu la biddiwu samsu waaw am na sarax yi gën ci yow bu fekkoon man nga am gàtt boo munt am gàtt heure bi itam ngay jënd mburu di ko saraxe waaw par dimanche waaw ngay dox ngay jënd benn mburu rek nga dagal ko ñetti dongo waaw par dimanche rek ba ñetti dimanche waaw. li si dolliku mooy ci wàllu liggéey bi. waaw. mbirum cat dala cee topp ah, wàllu cat. waaw wante liggéey moom yombu ci pour nit def la dara jàpp la kooku yombu ci. waaw wàllu liggéey bi. mais bët ak làmmeñ bët ak làmmeñ moo lay yàqal làmmeñ moo lay yàqal. mu ne nag mën nga am jëflanteek mbooloo dee ko bàyyi xel bu baax. acca jërëjëf tubaarkàlla moom génn na ñu xaar mu dellu siwaat wala. ñu xaaral mu jëlaat beneen auditeur tubaarkàlla bu fekkee si wut ñu jël beneen auditeur mbokk yi danañ firi gént gi ci kanam ci kanam tuuti rek am na ñun jëlan seen gént Mamadou tubaarkàlla euh, gën na ci yow nag nga am kilifteefu kër bu baax a baax Mamadou maanaam soxna yi moom lu mu bari bari baax na tànk àggoo fi sariya rëdd rek moom baax na ci yow kilifteef dafa baax ci yow trop dégg nga bu dee ci njaboot gi itam nag nga ñeme bu baax ñeme njaboot ndax loolu mooy li gën a mën a ubbi sa wërsëg mooy financement bu bari loo gën a joxe rek wërsëg wi gën di dolleeku noonu la feeñee maanaam daal su fekkonte ne tey mën nga am responsable bu mag dépense bu mag a mag a mag a mag loolu loo ci gën a jëm kanam rek wërsëg wi day gën di yokk ndax sa wërsëg loo gën a màgg muy gën a yokk gis nga euh, samsu wala sumo si saa boo xamante ne ñu ngi feq dañuy tuuti waaye luñ gën a yëkkatiku rek gën a am degré gën a am tam rëy maanaam gën a yaatu bu baax a baax noonu itam yow mi nekk biddiw boobu noonu ngay taxawe kon dafa mel ni jëflante mbooloo ci yow mooy gën ci yow wéetaay maanaam foo mën a nekk rek ah, fexeel ba ne ci mbooloo loolu day am solo wala mbooloo di ñëw ci yow wala toujours yow ngay jëflanteeg ñoom moo ci am solo jëflante gi rek mais pas nekk di waxtaan ak ñoom wala di garan place ak ñoom déedéet ci wàllu liggéey bi lañ jubloo wax ci loolu jërëjëf Mamadou ñu daal di jëlaat beneen auditeur xam naa ne borom gént yi nañ bàyyi xel bu baax a baax a baax ku ci am gént rek dana la ko firil léegi acca 88 628 19 05 ci kaw am na ci suuf am na mbokk yi dañ lay jël ci suuf leeralal la say mbir ba mu leer lépp loo xam ne mënoo koo biral rek mënees na koo yalu luñ mënta biral ci kaw rek mënees na koo yalu ci suuf suuf gi man la ak yow amul it fenn foo xam ne dañ fay enregistré déedéet loolu amul ci Baol Média FM ndax loolu dafay niroog alxiyaana moo tax loolu amul liñ waxanteeg yow rek mu jeex jeex na amul enregistrement amul dara kon képp koo xam ne rek bëgg na ñu jël la ci suuf leeral la say mbir say jafe-jafe say nattu say metit say jaaxle say coono indi la ci solution bu dee tawat la ñu mën la cee baaxee solution boo xam ne boo ci jaaree rek tawat bi mën naa saafaraw moo xam ban tawat la ci yaram yi loxo nga am buy metti biir buy metti tànk yi metti wala nga am dënn buy metti ba ci bopp buy metti gannaaw guy metti wet yuy metti yooyu yëpp mbokk yi buñ la jëlee ci suuf rek danañ la baaxe lu ci baax loo xam ne boo ko defee rek yàlla mën na laa defal jàmm incha allah tabaaraka wa taala loolu nag day aajowoo jël ci suuf ndax sekkare lay doon yu ci bare bari sekkare lay doon buñ la jëlee ci suuf rek wax la lu ci gën ci sa tawat incha allah tabaaraka wa taala

tubaar laaj la kon ñu njëkk a firi ki laajoon ñetti ganaar yi nee na dafa gént gis ñetti ganaar benn euh, wala waa kay ñetti ganaar la wax ne moom la gént ñaari seq ak benn ganaar bu jigéen ñaari seq ak benn ganaar bu jigéen mu gis nañ seq yi naaw nañu ba toŋ ci ab miir naaw nañu ba toŋ ci ab miir après muy laaj loolu lu muy tekki ci wàllu gént moom mi ko gis mbokk mi maa ngi ciy ñëw ca tubaarkàlla mbokk mi gént ñetti ganaar yi na bàyyi xel bu baax a baax dañ ko ko leeral léegi léegi léegi ganaar gu jigéen la gént ak ñaari seq nee ñaari seq yi naaw nañu ba tong ci ab miir nee na muy laaj loolu lan lay tekki keneen ki mu ne dafa dafa gént gis ñaari doomu aadama yu gudd a gudd a gudd ci kaw asamaan nee na ku ñuul ak ku xees nee na dañoo gudd nag ci kaw asamaan nee na muy laaj moom itam loolu lan la danañ ci ñëw mbokk mi ci des itam nee na dafa gént gis boolu armignon boolu armignon nee na boolu nickel boolu nickel nee gis boolu nickel waaye nee na euh, bu amul dara waa koy nee na am na sax ndox nee na am na ndox nee na am na ndox waaye gis na ci laaj doomu laaj itam nee na def na ci doomu laaj itam gis na am na ndox waaye am na doomu laaj itam nee na loolu lan la kon ñett yooyu bokk na ci yin fi encaissé dem maanaam yi nga xam ne jël nañ ko bi dem muy ñetti ganaar yi ak ñaari doomu aadama yu guddi yi jëm kaw asamaan muy ku ñuul ak ku xees waaw ñeenteel ba mooy ki wax ne gis na mbëtt maanaam tànki mbëtt ci kaw mu téen seen seen ci ci ci ci garab maanaam mu seen mbëtt ma mu daldi wàcc daw jëm penku na mu daal di wàcc daw jëm noonu la ko waxee de nee dafa gis mbëtt tànki mbëtt nee na mu seen ci kaw gis mbëtt waaye nee na mu daal di wàcc daw jëm penku kon mbokk yi ñeenti laaj yooyu moom lañ fi jëloon démb moom la ñuy leeral na ko seeni borom déglu bu baax a baax aca 88 628 19 05 88 628 19 05 88 628 81 08 su ko defee ñu daal di jël auditeurs yi ànd ak ñoom rek ci seet gi ku bëgg a seet lu jaaral foofu te su ko defee ñu jël la ci suuf jël la ci kaw lu la ci gën a lu la ci gënal rek yow aji woote ji ñun ñuy ñun ñuy réponse tontu bi moom lépp a yem ci ñun bu dee ci suuf baax na bu dee ci kaw itam baax na mais yow mi woote nag yaay taamu ndax ci suuf lañ lay jël wala ci kaw lañ lay jël 88 628 19 05 lépp dañ la koy leeral mbokk mi borom ganaar yi yow la ñuy njëkkee ci sa wàllu gént muy ñetti ganaar yi Euh, benn ganaar bu jigéen ak ñaari seq naaw yéeg ci ab miir 628 19 05 88 628 19 05 88 628 81 08 foofu ngay jaar ñu jël la ci ci kaw wala ci suuf ci kaw wala ci suuf njëriñ yi dañ ci ñëw léegi incha allah xam naa tey dana bari lool ay ay fawaayit yoo xam ne danañ ko danañ ko indi baaxe leen ko lu ci mel ni tubaarkàlla mur suratu mursalaat toll nañ ci jamonoom ngeen bàyyi ko xel bu baax aw saar la wopp boo ko yoree diggante tàngoor diggante picc diggante taab diggante neewo lum ci mën a doon rek da koy saafara ci nu mu gën a gaawe saafara bi nag mën nga ko bind ñaari yoon bind ko def ko saafara bind koy takk boo ko defee saafara bi nga sangoo ko su boobaa da nga mucc ci ay picc da nga mucc ci taab danga mucc ci yaram wuy tàng waaye danga mucc ci ay góom ak yu mel noon suratu mursalaat kooku especial la ci saar yi boo xam ne loo yu mel noonu rek moo ko tax a jóg ci faj amul leneen luñ koy booleet itam soo ko bindee da nga koy def saafara rek jëmmi saar bi nga def ko saafara nga sangoo ko wala nga denc ko di ko diwoo wa ilaa sax nga bind ko takk ko soo ko defee mucc nga boo ko defalee sa doom itam mucc na day faj ak damaamil damaamil mooy ay ay ay taab mooy ay taab waaye dafay faj itam alxuru alxarxu yaani alxaru jamul xaru xuru mi nga wax xaru mooy góom jamu xaru bi mooy xuru xuru mooy ay góom ak dumul mooy benn taab jamu dumul mbooloom ay taab mooy damaamil mbokk yooyu yëpp daf koy daal di faj day faj alximma wala alxamma kooku mooy sibru moom itam daf koy faj da ngay gis ne képp koo xam ne am nga yaram buy faral di tàng defal tegtal boobu ñu la wax kooku dafa bokk ci tànn sa njëriñ suratu mursalaati ngay bind da ngay def la ba noppi nag la mooy bismillahi rahmaani rahim daa def wal mursalaati urfan fal asifaati asfan ila axiri suwar ba asaar bi jeex nga bindal ko sa doom ji nga xam ne yaram yi dafay tàng fu mu mën di toll moo xam ci ngoon yi lay tàng ci bëccëg wala ci suba yi nga sang ko ci lu mu gàtt gàtt ñetti yoon nga sang ko ci ñetti yoon wala nga bind ko nga takkal ko ko bu fekkee tëralagu ko nga takkal ko ko bu boobaa itam tàngoor yaram du ko tëral bu dee dafa am ay taab mën nga koo defal bu fekkee dafa am ay picc mën nga koo def bu dee ay góom la mën nga koo defal bu dee neewa buy am ci yaram bi itam mën nga koo defal bu soobee sunu borom jàmm rek moo ciy mujj mooy wal mursalaati urfan fal aasifaati asfan gannaaw boo bindee basmala ba noppi tubaarkal tànn sa njariñ mi ngi noonu suratu mursalaati saar bu am solo la gannaaw boo ko bind nag da ngay jiital basmala la moom bariwaana looy bind danga ko ciy jiital ba mu des yenn saar yi rek ci wala yenn ñaan yi ci yenn ñaan yi lu ci mel ni eh, yàq liggéey wala yu mel noonu wala lu ci mel ni am na xeeti noob yoo xam ne it ñaari doo ko bindaale waaye da ngay bind bismillahi rek foofu ngay yem yu ci gën a bari nga bañ a àgg ca rahmaan yaak rahim lu ci mel ni eh, ay xeeti eh, not nit wala tasxiir ak yu mel noonu boo ko dee def ñaare la ci gën a bari rek dañ lay tere ngay àgg ci rahmaan arahim waaye boo defee bismillah waaye bu ci mel nii na xam ne ñaanug muslaay la wala ñaanug xëcc xiiwal bu mu ci mën a doon moom mën ngaa indiwaale bismillahi rahmaani rahim ndax mooy tàmbali saar bi soo ko bàyyee dañuy wax ne dagg nga saar bi dafa amoon benn wàlli yu bu mag a mag a mag a mag tëdd dafay saxoo wan nag doon def al ixlaas suratu ixlaas suratu ixlaas di ko jàng lu bare bare bëri mu am bis nag ñu won ko ñu won ko jëfi ixlaas ca aljana mu nekk ay picc yu rafet rafet rafet yoo xam ne dañoo picc yi dañoo kolu maanaam dañoo am ay ay ay kol ci seeni baat rafet rafet lool lool lool lool lool waaye mu gis ne amuñu amuñu bopp maanaam seeni bopp dafa dagg waaw ah, picc yi daal taaru nañ waaye amuñu bopp nee na bi mu yeewoo mu dem ci boroom xam-xam laaj ko gént gi lan la ne ko man damay def fu ma toll di sàllawle di jàng suratu ixlaas lu bare bari waaye sunu borom dafa mel ni def ma won sama njàng moomu sama jëfi suratu ixlaas joo ci àjjana waaye mu nekk ay picc amuñu ay bopp loolu daal man moom laa gént te xaw ma lu ko waral borom xam-xam bi ne ko da ko du àndaale ak basmala maanaam basmala nga bàyyi moo tax moo tax jë moom jëmmi euh, xul walaaw xul walaaw ah, da koo def jëmmi picc ay picc foofu ci aljana mu nekk sa tuyaaba waaye basmala yi nga doonutoon jàngaale moo tax amuñu ay bopp moo tax toujours mbokk yi dafa am yenn xeeti ñaan yoo xam ne boo koy defal nit dee ci boole bisimilahi rahmaani rahim da ngay dem nag yenn saay ci barab yi lu ci mel ni armeel wala nga dem ci fu ñuy dence nit fu mu fu mu fi mën a nekk léegi buñ nee nañ ko defal suratu ixlaas am na ñoo xam ne basmala yi duñ ko indiwaale basmala yi dafa am solo lool ci indiwaale ko ndax tuyaaba ji lu mu bari bari bari bari te basmala yi bokk ca gis nga góor googu ak wàll yu boobu wala nit ku baax kooku ndax xam ne dafa gént gént gi dafa gis ne picc yu amul baat picc yu amul bopp lañu yaakaar naa picc bu amul bopp njariñ la du bari bopp daf dafa baax lool ci lépp lu manti doon ndax ci la sunu borom denc secret lu ko amul presque doo dund kon buñ neelatee defal sóoratu ixlaas wala defal saar sàngam te basmala aayu ca indi ca la indi ca basmala ndax loola mooy taaral tuyaaba ja tubaarkàlla kon basmala am na solo mursalaati ku koy bind na nga ci boolewaale basmala mooy bismillaahi rahmaani rahim ca tubaarkàlla yéen borom gént yi fàttewuñu leen ñu ngi ciy ñëw 88 628 19 05 88 628 19 05 nga may jote ma jël la ci kaw wala ma jël la ci suuf 88 628 19 05 88 628 19 05 foofu nga may jote sama portable mënoo ma cee jot bonus mënta dugg buuñaa mënta dugg boo duggee fin de mois itam mënta dugg crédit rek moo mën a dugg loo ci am dugg cent franc deux cent trois cent ba seize cent yaa xam na sa soxla toll ñu daal di jël mbokk mi salaamaaleykum asalaamaaleykum allo 88 628 19 05 mbokk mi yow la ñuy bàyyi xel bu baax salaamaaleykum acca kooku daa mel ni ak siwut ñu xaar ko mu dellu siwaat tubaarkàlla 88 628 19 05 88 628 81 08 mbokk yi gént yi ñu ngi ci ñëw jëlee nañ fi démb ñeenti gént ñeenti nit kenn ku si nekk doxal nañu géntam wax nañ ki gént ganaar yi ñaari seq ak benn ganaar bu jigéen danañ ci ñëw léegi incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah allo salaamaaleykum 88 628 19 05 88 628 81 08 88 628 19 05 88 628 81 08 tubaarkàlla 88 628 19 05 wala nga def 88 628 81 08 ñu leeral la sey mbir bu dee ci tawat yi la wala ci soxla yi la wala ci gàllankoor yi àdduna yi muy nattu yeeg balaa yeeg tiis yeeg lépp na xam ne day dal ci doomu aadama waaye loolu it doomu aadama bu mu ko tiisloo bu mu ko naxarloo dafay yokk garaatam rek àdduna moom ku la ci ëpp ku la ci ëpp ay nattu te dékkoo nattoom gëm yàlla kooku moo la ëpp tuyaaba ëllëg yowmal xiyaamatul akbar natt bi lu mu baree baree bare nga muñe ko gëm yàlla jàppal ne ëllëg kenn du la ëpp garaat sëñ Moussa day wax naan nattub jullit day yokk ay maxaama mbaa mi sippi ñaawteef bisab xiyaama te sunu borom subhaanahu wa bala lay wóolu ba jox la yen ba nga bala lay wóolu ba jox la mbir ya nga muñ yanam ba aw ca tànki mbër ya la nablu wan nakum la wax la nablu wan nakum mooy danañu leen natt kooku aay alquran la ñu daal di jël mbokk mi salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa waaw sëñ bi ñu ngi siyaar ba Badiane Mbacke bisimilah waaca génn na tubaarkàlla ñu xaar mu dellu siwaat sëñ bi ñu ngi jéggalu bu baax a baax du ci yow du ci ñun xëy na dogalu sunu borom la waaye mën ngaa dellu siwaat 88 628 19 05 mbaa nga def 88 628 81 08 ñu xaar la foofu.